yaa ma may dégg mbay baal di njambaan tiitir yi <laughs> ak di ko jaxase ak di wax lu la neex ngir bëgg ñu seetaan la bàyyi loolu ndokk yàlla ba ñu mën ku mel ni man mhm. ñi ma amee compréhension jëme ci yow merew ma la ci saagaw ma la mhm. woowu ma la waxu ma la tono ma la woow la dama la bàyyi xam ne da nga bëgg jaay si produit te pur jaay ko il faut nga titre loolu mais non non jégal naa la loolu amul problème jégal naa la loolu amul problème état d'esprit la tolluwaay la peut-être deux ans ci ginnaaw boo ko defoon bu ndajee du baax ci yow waaw danaa la dëbb ba nga mokkuru mbax waaye tey état d'esprit bi ñu yàlla defal jaarale ko ci président mhm. yenn de détails yi sew yi ñàkk fayda yi dañuy bàyyi mu jàll mhm. mais loolu du problème mhm. président moom Yot say suma candidat la ci élection présidentielle loolu luñ jàpp la ci ay weer. mooy diggante novembre gi ma taxaw. jëm li nga xam ne mooy février. après day jeex. li yàlla dogal mu dogal ko kii njiite réew mi jiite mi. ku ne delluwaat ci sa liggéey. président Wally nag. c'est mon président à vie. est-ce dégg nga ma. fii ak mi ngi taxaw di way. amul élection. amul opposition. amul concurrence amul dara. moom képp. mooy suma président ci li muy yëngu à uhum. vie ah, ba keroog may xëy na bàyyi naa showbiz jël la ngay joxe uhum. incha allah mais mais Omaro nee nañ nee nañ su demee nii dootul euh, euh, euh, day gëj a tëgg mais oto bi oto bi moo grand Seydou mais nam naa la nam naa la grand ma rew ci ni nga defal dama ko woyofal ah, non woyofal dama ko woyofal grand <laughs> mais oto bi oto bi Eh, oto bi bi benn oto xam nga la ma si oto bi oto bi rek waaw. non non non jeex na. waaw oto bi. tey la président moo ko. waaw déggoo ma tey. waaw oto ban. oto bi mu jëm président moo koy dawal ak ak ak moom. BM bi waaw waaw loolu bi boole ko ci montage bi. BM bi ñaari nit ko am Sénégal ñaari président yi président Macky Sall ak président Wally Seck. ñoo koy dawal ci Sénégal. BM la bu weesu. xanaa li mu jar ci xéwal sax mënu ma ko wax. ñaar lay jar. non non rus naa ko rus naa ko wax. xaaju milliard. Eh. waxal luñ la wax loo. 500000 waxal luñ la wax loo. da ngaa arrêté. Ah. arrête-moi ça na oto kañ moo ko rafet la moom barke Cheikh Salim Mbacke man lii mosuma ko gis mais non son excellence lii lan la man yii yër xeetu faar la saar yi mel nii bëti chinois sew rucc la ilaha illallah muhammad rasulullah seet tet tet tet BM 2024 waaw ñu ngi ci 2023 jeexagul de BM 2024 2024 laa wax BM bi nga xam ne moom la BM mujjee defar nga xam ne Sénégal ñaari nit a ko fi am benn bi mi ngi kër Macky Sall beneen bi président Wally Seck ko yor ñaari président yi daal ñoo moom barke borom tubaal lii kenn mus koo gis xaal président ñëw ubbi oto bi ma dugg ci biir wan leen ko man lii dama ko mus ta gis ci àdduna man c'est du jamais vu cee tet tet buy ñëw ci yow day ñëw ci yow rek du yónnee du yeble du able du sifle du siñaale kii la yàlla ñëw ci moom sama waa ji Lat Diop Degen Baye yàlla na ko muurloo. waxoon naa leen dinaa leen jëlal biir bi dige bor la rendez-vous la sama président rek ku am de toog ca kanam di ko dawal nag teg ma ca kanam ma ne ci wetam ànd ak moom. waa luy fay lii moom la ko yàlla may président Wally Ballago Seck barke borom Tuubaa Mbàkke xoolal ma lii xoolal ma xoolal ma xoolal ma tubaab ba eh, eh, eh, plafond ba xoolal ma plafond ba na muy tàkkee. méta appartement ma ne ko méta appartement barke Serigne Touba Mbacke kenn mës ta gis lii lii dana rees de dana rees ak jàmm di ko ko muurloo barke borom Touba zéro kilomètre zéro kilomètre sport ni ma la ko waxee rek ñaari président yee koy dawal président Macky Sall président Wally Seck lii la yàlla dogal liggéey ndey bitig la ko lépp la perte sa yàlla bénéfice ku dem ba yegg sa ndey la yóbbu ko dem ba mën a too sa ndey la fi baay sa xol la ko may mérité nga lu ne jet privé yaa ngi ñëw avion yaa ngi ñëw lépp ngi ñëw bàyyi jaago mu ndaw chéri soxna yi dara kenn du yow sama waa ji mais le porte parole mais porte parole li ngay sol barki la dafa rafet billaahi mais mais joyeux anniversaire nag happy birthday to you dama la dama la damaa guddee gis affaire yi merci mais joyeux anniversaire merci bu baax kay. merci Mbaye suba la ñuy féete anniversaire ah, fan la. waaw suba lañ koy féete ca Vogue. incha ah. allah rabi soir ah. ah. à partir de 2h du matin eh, avec son ah. excellence président ah. Waly Ballago Seck incha allah ah, euh, jël nañu ay table def nañu une forte délégation te incha allahu rabbi li ci war lépp danañ ko ci def dañ ci xëpp bomb damay affaire bi du set de <laughs> damay gëm rek dóor warko surlaay borom Tuubaa <laughs> mais Omaro oh, oh, sa président bi fu mu toll président mi ngi ñëw mi ngi ci yoon bi jot naa ko léegi waaw xam nga sunu yaay ki na daam mooy jeunes yi su paree sunu papa Assane da daa war a joué. après président Wade doog koy tëj. mi ngi ci yoon bi mi ngi waajal. incha allah rabbi tey mooy première euh, joué am fii. waaw dina ñëw bégal soppe rabbi. non fii kenn fat président àjjuma jot mu joué fii. chaque vendredi joué fii. fii nii leg leg. non nga ne tey mooy première fois mu joué fii. waaw non non bi mu demee ak ak kii. mais Mbaye yow da nga dof. bi mu ñëwee quoi. wala Mbaye li ngay wax maîtrise boobu. non bi mu ñëwee bi mu ñëwee bi mu jigee France. Ah, quoi ñëw ah bi mu jigee France ngay wax. mais ah. président chaque àjjuma day am fii dina fa jàll. barke alcorane karim fii dîner de gala da fi am bo xamé ne du am télé du am radio du am site internet du am dara ay dina de gala privé. te ken du ko yëg te ken du ko yëg ñun suñu dem bop ñun ñun staff bi. barke alxuraanu karim président mën na joué fi am ci ñun ñu ko dul yëg. ah mais lolu mo la xanaa soirée privé lay do dina da gala privé déggoo li ma la wax ñun duñ tok ñaari aljuma te président joué fi man bima commencé liguey ak mom le 1er janvier 2023 bi ba fii ma taxaw ak yow amul ñaari aljuma yu ñu tok te joué wuñu fii ay dina da gala privé fii nii. non fii miin nañ ko fii suñu baar fii ni ñuy def bogg. Ah. di ko def baar mën yi ah. lañ koy def. Ah. kiin fat moom sunu sunu njabam na ci ñun la bokk. mais mais mais Omaro keroog génn nga génn boo xam bëri na critique torop mooy keroog bi affaire yatasaay bi bëri na critique torop torop torop mais xaw ma quoi bëri na critique de Mbaye <laughs> eh, dinaa bàyyi di wax ak yow. bàyyi woon naa la non yow sama bëgg. xam nga bàyyi woon naa la. Ah, ah, yow maa la bëgg. xam nga bàyyi woon <laughs> dinaa la bàyyiwaat. man lan <laughs> laa bëgg. Ah. nga bàyyi di bëgg jaay sa produit. tax ngay titre lu la neex. bàyyi loolu Mbaye waaw foofu moom maa fa def erreur. Mbaye déggoo ma ne la. changé naa président. waaw Waly nekk tout sa président et Saïd Moussa. waaw moom maa def defoo. Uh-huh. yow yaa wax lu la neex. waaw Mamadou Yatta Saye sama presidente la